بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بأقوى الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد والي وسابي وفرو Le 18 septembre prochain, Touba va célébrer un voyage. Un voyage par n'importe lequel, celui de Cheikh Amadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba revint de cet exil périlleux avec d'innombrables connaissances. Il revint aussi de ce voyage avec d'innombrables dons, des dons dont personne, nul ne pourra un jour se prévaloir. Il a ma lam wa la fi Par conséquent, un événement exceptionnel فتاw bi Mustafa sumatul miftaaw bi ziar nga at nga umra nga te am nga yool ba ku ne xam ne ni bi muy wan ginnaaw dëkk bu tedd bi wan ginnaaw ay bokkam ak njabootam ak taalibeem li mu bëggoon rek mooy dimbali ummatul Mustafa moo tax mu ne ca way wa yaa malik al mulki yaa man jalla al hawadin irham jamal wara yaa hadi yàlla daal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 ci dunduk serigne bi ak sabab magal gi kon Dakaractu jamono bu ci nek sa suné ak événement bu mu doon dara du len ci ëpp yanqaadu lil muxtaari man qaada al kiram Toutes les fois qu'il s'agira de vivre les grands événements, tu se changera de l'essentiel. Pour ce 18 Safar, ce sera chez nous. Nous l'avons koy nous l'avons ak nous Magal Touba 2018 ci Dakar Actu walam nawa tawfiq wal fala ñu ànd dundu magal gi ci Dakar Actu bi man bi wara خلق من قاد إليه زورا نفو النبي للقديم كسبا وابو أخنا القديم انشبا